الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا مرضى لك أنت نفسك تعالى رحمة المسلمين
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله فغاية المؤمنين نيل الرداء رب العالمين وليس من ريب أن سبيل ذلك فعل الخير فكانت هذه التذكرة التي أسأل الله أن ينفع بها سامعها وعاملها إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل آمرا بفعل الخير يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu xutba tey mooy al matlub min al muslim mooy lan la nuyu sàkku lan la sunu boroom subhanahu wa taala di sàkku ci jullit al matlub min al muslim ma huwa al matlub min al muslim lan la nu sàkku ci jullit bi lan la nu sàkku ci jullit yi moom yàlla lan la sàkku ci ñun xam ngeen ne jubluwaayu jullit ci kaw suuf mooy mu am kontante yàlla tabaraka wa taala moo tax jullit bi di julli moo tax muy woor moo tax muy góorgóorlu ci jaamu yàlla def ay santaaneem bàyyi ay tareem lu tax mooy pour mu am kontante yàlla pour yàlla bég ci moom loolu kese moo tax jullit bi di góorgóorlu nee na sikk nekk ci yoon wi lay yóbbu nag ba nga am kontante yàlla yoon wi ngay jaar ba yàlla subhanahu wa taala kontaan ci yow yoon woowu mbokk yi mooy fi'lul xayr mooy jëf ju baax amul beneen yoon amul beneen yoon bu jullit di jaar ba am kontante yàlla lu dul taxaw ci jëf jëf ju baax looloo tax mu nekk benn fàttali bu nuy fàttali sunu bopp di leen ko fàttali di ñaan buur jàlla wa ala subhanahu wa taala mu jëriñ fàttali bi ki ko déglu ak ki ko jëfe mbokki jullit yi lan mooy alxayr fi'lul xayr alxayr ismun jaami li kulli ma yuqarribu ila allah min al a'mal as-saliha su fekkee dañu bëgg a soññ nit ñi ci jëf ju baax ndax jëf ju baax mooy tax ñu am ngërëmal yàlla adduna ak alaxira kon lan mooy jëf ju baax borom xam-xam yi nee nañ tur la woo xam ne ismun tur la jaamiun bu boole li kulli ma yuqarribu ila allah ci lépp loo xam ne day tax soo ko defee nga jege yàlla ñu ne loolu moom mooy jëf ju baax loolu nag min al amali saliha ci mbooleem jëf yi lépp looy def jëf sa su jeexee nga am ci ngërëmal yàlla tabaraka wa taala ak kontaanteem loolu mbokk yi moom mooy jëf ju baax loolu nag sëriñ bi nee na alxayru kasir lu bari la alxayru lu baax mu ne kasir dafa bari waaye wa qalilun failuhu ñi koy def ñoo ñoo néew ñi koy def ñoo néew ndeysaan dafa bari kenn mënu koo jeexal moom jëf ju baax waaye nag wa qalilun failuhu ñi koy def ñoo tuuti mbokk yi lan mooy contraire u jëf ju baax ma didduhu ay diddul xayr achar wa didduhu achar contraire u jëf ju baax mooy lu bon xoolal pénc mi xool leen dëkk bi li yàlla di soññe ci jëf ju baax ñépp nit ñi dañ fee bàyyi jëf ju baax di njëkkante lu bon dafa mel ne dañ leen wax aaya bi fastabiqu char ñu fàtte dañ ñu waxoon fastabiqul xayraat jëkkante leen lu baax yéen samay mbokk julit tomb bi njëkk ci santaane bi yàlla santaane jëf ju baax al amru bi fi'lil xayr sunu borom subhanahu wa taala moo wax ci suratul hajj yaa ayuha alladina amanu rkau wasjudu e yéen ñi gëm yàlla abdallah ibnu mas'ud nee na sooy dox ba ci yàgg nga dégg yaa ayuha alladina amanu mu ne taxawal amatoo droit dox mu ne ubbil say nopp na nga déglu dégg aji dégg xerawlul ndax yàlla mooy wax ak yow allahu akbar yàlla mooy wax ak yow lan la nu yàlla di doye mu ne irka'u wasjudu na ngeen rukoo na ngeen sujjóot waaw julli leen warka'u ma raki'in wasjud waqtarib dem leen ngeen julli ji ci aji julli yi rukoo leen sujjóot leen su ngeen bëggee jege yàlla sujjóot leen waa ji ba mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi xool sahaaba bi daal di koy yërëm ndax ni mu xëre ci yonent bi ni mu bëggee yonent bi fu yonent bi tourné da koy gis su yonent bi ne bëreet mu jël dàll yi allahu akbar ndax bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi xool ko lool yërëm ko ne ko lan nga bëgg ëllëg ma ñaanal la yàlla yàlla defal la loolu waxal loo bëgg rek tey kenn ci ñun bu ñu yonant waxoon loolu ne waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla defal la ko lu ñuy wax mbokk yi ñun day dégg ku ne R plus 5 kee mu ne 4 4 kee mu ne nga may may ay ay hectare kële mu ne subhanallah ndax mbirum àdduna xoola ku toll na yonant mu jàkkaarloog nit ne ko waxal loo bëgg ma ñaanal la yàlla defal la ko mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna allahu akbar lenn dong laa bëgg nga ñaanal ma yàlla nii ma ànd ak yow ci àdduna yàlla defal ma ma ànd ak yow biir aljanna yeneen bi ne ko loolu de mënuma ko waxal leneen dugal aljanna ma mënuma ko yéen ñi nekk Sénégal di dugalaate aljanna nga xam ne caabi yi joxe ngeen ko waaw joxe ngeen numéro kër yi yéen de li ngeen mën Seyduna Muhammad mënu ko woon xawma fu ngeen jaar nag bopp ko martaba ak daraja ak doole xawma ban buntu ngeen ubbi allahu akbar lu dul buntu seytaan koo gis muy dige aljanna ku waru la parce que moom xamul ne dana dugg ba pare naan day dugalaat wala fi nee nañ bala nga ne naam ne fa waaw bala ngay jaay bala ngay laax jaay nga laax lekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo woo Fatima kan mooy Fatima da doon wax Fatima daggit la ci man qitaatun minni daggit la Fatima li muy nekk mag mag su yonent bi toogoon sallallahu alayhi wa sallam seen Fatima day jóg taxaw nuyu ko foon ko akolaat ko ci ñaari lex yëpp toog toogloo ko ci poojam ndeysaan te kii daggit la ci man ku ko kontaanloo kontaanloo nga ma ku ko merloo merloo nga ma terewul moom yonent mu ne yaa fatimatu bintu muhammadin salni min maali ma shiti fa inni la ugni anki min allahi shay ah fatima maa la jur de man nag maay muhammad maa gën ci mbindeef maay xaritu yàlla bi maay soppeem sama alal lépp lu ma ci moom laajal ma jox la léegi balaa may dee Fatima ëllëg boo jaamuwul yàlla mënul lu ma la dugal daal aljanna mënul lu ma la dara laa ugni anki min allahi shay loolu da la yonent bi waxoon Fatima ñun ñi dugalaate tey aljanna ñun ñi mën li nuux mënul woon waaw ñun ñi mën li Ibrahima mënul woon ñun ñi mën li luut mënul woon te ñooñu ulul azmi min ar-rusul yéen waaw fekkee nag Sénégal am nañ koo xam ne mën nañ lu ulul azmi mënul woon kooku de ponkal la kon yàlla ne wasjudu sujood leen wabudu rabbakum jaamu leen seen boroom bu yàlla yemoon ci ñetti baat yi doy na irka'u lu muy digle jaamu wasjudu lu muy digle jaamu mu ne waabudu rabbakum jaamu leen seen boroom li ndigal la de suratu hajj aya 77 yàlla yemu ci mu ne wafalul xayra waay waay def leen lu baax waay dafa mel ne dañ ko laaj waaw yàlla lii buñ ko defee yëpp lu ñuy def lu ñuy am mu ne laallakum tuflihun ndax ngeen texe kon ku bëgg a texe mbir maa ngi nii looy def mooy jaamu sa borom góor góorlu ci def lu baax yàlla nee na nga texe tilkal aaya ayyuhal ibad ishtamalat ala muhimmati almuslimina fi lxaya sunu buggee xam aaya bi lan lay tekki dëgg-dëgg mooy dafa ëmb yitte yitte bi jullit di def ci kaw suuf loolu la aaya bi di ëmb mooy lan def def lu baax góor góorlu ci lu baax wa amara bi zalika rasuluna wa habibana muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi qawlihi if'alu lxayra dahrakum wa taarradu linafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmati yusibu biha man yashau min ibadih wasalu llaha an yastura awratikum wa an yuammina rawatikum rawahu tabrani fi lkabir sunu yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax na ci téere al imaamu tabaraani yonent nee na dee leen def lu baax if alul xayra def leen lu baax kañ lañ koy def mu ne dahrakum seen dund gi yépp góor góorlu leen ci def lu baax na ngeen góor góorlu ngeen di koj ngeen di wër jamono yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala dafay sotti yërmandeem ci kaw suuf dee leen wër waxtu woowu mbokk yi suñu waxoon tey am na benn waayu buy wër yor 4-4 yor ay enveloppe enveloppe bu nekk 500000 la waa ji day wër ci gox yi par heure sàngam nag la ëpp lu muy nekk place sàngam ndax ñun danañ wëri waajooju wala duñ ko wër wallahi dinañ ko wër fekkee dañuy wax dëgg ñun ñëpp danaan ne dinañ ko wër kay yonent bi nee na wa taarradu li nafahaati rahmatillah wër leen waxtu wi yàlla di sotti yërmandeem ci kaw suuf allahu akbar mu ne fa inna lillahi nafahaatun min rahmati yusibu biha man yasha yàlla yor na yërmandeem bu muy sotti ci jaamam yi ci waxtu wu ko neex waxtu wu ko neex mu koy sotti mu ne waxtu woowu na ngeen ñaan yàlla wasalullah an yastura awratikum ñaan leen yàlla mu suturaal leen ci seeni awra bu leen yàlla toroxal wuññi leen ne leen dum génne seeni secret ci mbedd mi weer leen comme ni nit ñi di weere tey seen bopp ci rajo yeeg média yi parce que démb damay déglu benn rajo benn jigéen di wax li ko naqari ci doomam ndax doom ji daa nekk góor jigéen yàq alalam dem ba cité Aline Sow daa di fay loué appartement ak góor jigéen yi li may wax amagul juróomi fan moo tax réew mi kenn xamul fu ñu jëm ndekkee dëkk bi genn wàllu xale yëpp ay góor jigéen lañ moo xam maa xal la xool leen tubéy yi rek sëñ bi ku dul takk tubéyam tubéy yi ñuy takk ci boo ñooñu ñan ñoo koy def nga defa ne kuy génne awraam di dox doxi jigéen baram sa bopp bi ah takk ay jaaro nopp yar ay we kenn xamul lu nuy nuru xam nga ne loolu góor jigéen rek moo koy def man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum yonent moo ko wax waaye xam nga wax jëpp fu muy teere mooy bu ko journaliste yi ne waaw xale bi ana papaam mu ne maag papaam ñoo bokk bàyyi parce que daf ma violé woon la ila fala fala léeb bi doxe tàbbi géej maag papaam ñoo bokk bàyyi waaw xale boobu kay kon bu juddoo noonu la war a mel yonent bi nee na al iraqu dassa siddit day roogalaat loolu moo tax ñu ne booy takk jabar ah attention de booy ut jëkkër attention de bu la même porte ki takk bul takk même porte ki wëral wëral ba gis nga doog a takk waaye xëy rek daje ci mbedd mi tourné koñ tourné waar rek gis ku mel ne fleur 31 décembre nga takk di nga xam ne dañ koo orné defarul boppam dañ koo defar mbokk yi yonent bi nee na wasalullah an yastura awratikum xoolal loolu bi mu amee kenn yëgu ko naka la ndaw si di waxee ci rajo maak papa ma bokk bàyyi def maa violé woon te yàlla suturaal la ba pare nit ñi xamuñu ku suturaal sa bopp waaye déedéet yàlla mooy nattu jaam ñi di wuññi seeni awra moo tax mu ne ñaan leen yàlla yàlla suturaal leen ndeysaan yàlla day suturaale te waaye saa yoo noppee soo suturaale sa bopp nga noppi yàlla suturaale yowmal qiyaam jàngeen xista Moussa jamono Moussa bi maral amee taw amul yàlla ne Moussa ñun dey ñu ngi bëgg a dee taw amul yàlla mu ne jéggulu leen ngeen def salaatul istisqa Moussa daal di génne nit ñi yóbbu leen ca àll ba ñu ñaan ñaan ñaan ba sonn ndox ñëwul yàlla mu ne Moussa Moussa mu ne yàlla waaw ñun ñaan nañ ba sonn ndox ñëwul di te yooyu ñu waxoon ñu ñaan yàlla mu ne ci biir mbooloo mii ñaan dafa am ku ma tooñ te fekk baaluwu ma du ma leen baal ndox mi du wàcc Moussa daal di taxaw ci jaamu yàlla yi mu ne jaamu yàlla yi ñëpp wuyu mu ne ci ñun ñi toog fii dafa am ku tooñ yàlla te yàlla nee na bu ma baaluwul ndox mi du wàcc rek benn waay mu ne man mii la ci xelam ci xelam de fu mu toog mu ne man mii la rek mu tàmbali tuub tuub rek ndox mi sotteeku yàlla mu ne waaw Moussa mu ne waaw yàlla yàlla mu ne waa ji tuub na tuub na ba mu déggee nga wax rek daa tuub léegi nag yàlla Moussa mu ne yàlla waaw wan ma ko kan la yàlla mu ne ko loolu nu mun nekkee bi ma tooñee wanewuma ko ma baal ko di ko wane bi ma tooñee waxuma kii moo ma tooñ pour nit ñi xam ko ma baal ko ba pare naan kii la Moussa man tamit dépassé naa foofu allahu akbar yet nit bu ko yàlla suturaale na suturaal boppam moo tax mu ne ñaan leen yàlla subhanahu wa taala mu suturaal leen waaye waan yu amina aw rawaatikum seen fit yi tëf-tëfi nga xam ne yéen a ngi tiit ci seen njaboot tiit ci seen bopp tiit seen aduna tiit seen alaxira ñaan leen yàlla yàlla dalal tiitaange googu an yu amina rawatikum ñaareel bi mooy almubadara ila fi'li alkhayrat almubadara ila fi'li alkhayrat yanbaghi ayuha alahbab an yakuna almuslim مبادرا إلى فعل الخير سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته mbokk yi ab jullit li war ci moom mooy muy gaawtu ci jëf lu baax lu baax gaawtu ci sari an fi taatillah gaawal topp yàlla bul yéex misaal woor nañ ba pare ñu ngi war a dugg si tasawaal gaawal gaawal nga woor bul nekk di yéex yéexlu gaawal soo déggee waxtu jot na noddu nañ gaawal nga dem julli da ngay gaawtu ci def lu baax gaawal an yakuna sari fi ibadatillah waaye wa an yakuna bati mooy yàlla nag nga war a yéexe mooy yàlla nga war a yéexe mais da ngay gis tey nit ñi mooy yàlla lañ gën a yàkkamti ak jaamu yàlla tabaraka wa taala jaamu yàlla day jot nga gis nit ñi langaamu da ngay gis kuy ataaya ñu nodd mu toog waaw doo julli ji maay xaaral bañ naan rek waaye nañ bàyyi ba naan waaye garaawul nañ ko dóor mu daanu yéen jóg julli déedéet nga sol say godaas yor sabal di entraîné ñu dégg ñu noot waaw doo julli de non non nañ garaawul nañ bàyyi bu ñëwaat amul problème bu nee ñu dóor ko boole ko ndeysaan xoolal an yakuna sari ala maasiyatillah mooy yàlla lañ yàkkamti waaye jaamu yàlla da ngay gis nit ñi di yéeg xoolal rek fajar del yee yenn gaa yi fajar la ilaha illallah dañuy mel ne ay sàmbatali pour ñu jóg waaye boo leen ne woon nangam la avion bi yaa ngi tardé duñ nelaw sax ku ci am rendez-vous doo nelaw aéroport doo nelaw kay dina la jaral nga meew lee lu ne nga dugg ci loolu ab jullit du ko mel ixwatal iman qala taala fi mawdiayni min alquran fastabiqul xayrat njëkkante leen lu baax lu baax dañ koy njëkkante jàngeen histoire Moussa bi ko yàlla woowee moom ak ay nitam moom Moussa mu ne fa ñukk nit ñi dem wuyu ji yàlla loolu yàlla nga ko wax ci suratu Taaha aaye 83 84 yàlla mu ne wa ma ajalaka an qawmika ya Moussa qaala hum awlaayi ala athari wa ajjaltu ilayka rabbi li tarda yàlla woon na Moussa ak ay nitam Moussa bàyyi nit ñëw wuy ji yàlla ba mu ne cëpp yàlla ne ko ana say nit mu ne yàlla man damaa yàkkamti wuy si la bàyyi naa leen fa amaana ñu ñëw man ñëw naa pour lan pour yàlla nga kontaan ci man man damaa dégg nga woote rek ma ñëw tooguma fa naan nañ xaar heure bi jotagul ak des nay minute des nay seconde ba nga wootee rek man yàlla ñëw naa bàyyi naa leen fa nag amaana ñu ñëw noonu la ab jullit di def jullit bu mu toog di yéexant su ngeen demee ci alwasaaya al asara bu al imam al shahid al xasanul banna ci ndénkaane bu mu dénkaane def ko fukki ndénkaane bu mu doon dénk ixwaanul muslimin frères yi mu jar ndeysaan kenn ku nekk tey boo amoon photocopie boobu nga bind fukki ndénkaane yi teg ko ci sa bopp lal bokk na ci jógal julli saa yoo déggee nodd qum ila salaa mahma samita nida saa yoo déggee nodd rek jógal amatul looy xaar sànnil li ngay def jógal jàpp jullil ak saa yoo ko déggee bul yéex loolu bokk na ci al imam noonu la ab jullit di gaawe mbokk yi ci def lu baax su la yàlla woowee nga gaaw wuyu amul yéex yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci hadisu abu hurayra mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal baadiru bil amali baadiru gaawantu leen njëkkante leen jëf yi njëkkante leen gaaw leen fitanun ka qitai llayli almuslim yusbihu arrajulu muminan wa yumsi kafiran wa yumsi muminan wa yusbihu kafiran yabiu diinahu bi aradin min addunia rawahu muslim ñenti ne gaaw leen ci jëf ju baax bu leen yéex musibaa ngi ñëw gu ñuul lëndëm ba mel ne xaaju guddi mu ngi mu ngi sotteeku seen kaw gaaw leen fitanun la wax musiba ka qitaai leylil muslim moo ngi lëndëm ba mel ne daggitu guddi mu ne da ngay gis jullit bu xëy nekk jullit jullit boo xam ne bi muy xëy fajar jullit la bi muy yeewu ngëm yàllaan ci dënn bi mu ngi dem ci jàkka ji fajar ngëm yàllaan ci waaye balaa ngoon mu nekk yéeféer nga gis ku ngoonu nekk yéeféer bu ñuul këkk balaa bët set mu nekk jullit ñu ne waaw yonent bi loolu nu mu nekke mu ne yabi a diinahu bi aradin min addunia day jaay diineem ci ay poñetu àdduna lay jaay diineem looloo koy def ab yéeféer day dugg ci lu mu warul dugg ndax am amu àdduna waaw business dóor mu daanu rattak lijjanti booy town bi booy booy booy booy jaay sa diine waaw jaay sa diine bi aradin min addunia nga tax nga nekk yéeféer koo wax mu ne moonin bi dañ koy dañ koy lijjanti booy business la waaw dóor mart waaw allahu akbar léegi sax imaam yi dañuy dóor ay mart da ngeen imaamu grande mosquée keroog bi mu waxee dajji weer yi ba mu doyal mu ne nag léegi Macky da nga ñuy recevoir nag waaw recevoir ñu nag ñun waa Dakar recevoir a gooñu nag loolu mooy lan mooy jaay sa diine jaay sa diine loolu moo tax mu ne nañ bàyyi mandat bi mu nekk sept ans waaw nee na weer moom Sénégal rek weer Dakar rek bu ñu waxoon Sénégal sax alhamdulilah waaye Dakar waaw li ma waxoon xutba rek mooy waa Dakar dañoo bëgg yàlla indi leen weer yu place de l'indépendance dañ def demande kon yónnee ko ko bokk yusbihu rajulu muminan nit day xëy nekk ku gëm yàlla waaye wa yumsi kaafir balaa ngoon mu nekk yéefir wa yumsi muminan wa yusbihu kaafir mu ngoonu nekk ku gëm yàlla waaye balaa suba mu nekk yéefir lu tax yabiu diinahu bi aradin min addunia ndax day jaay diineem ci poñetu àdduna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ne baadiru bil amali sabaan juróom ñaari mbir a ngi nii gaawtu leen juróom ñaari mbir a ngi nii gaaw leen ci hal tantadiruuna illa faqran munsiyan xaaru leen lu dul ñàkk gu leen di fàttaloo yàlla ñàkk gu leen di fàttaloo yàlla mu ngi ñëw kon gaaw leen bu ngeen amee balaa ñàkk gi ñëw ndax ñàkk bu dalee ab julit day fàtte yàlla dootul julli dootul woor dootul def lu baax ndax ñàkk loolu tax yonent bi ne wa kaadal faqru an yakuna kufran ñàkk day tax nit nekk ab yiifir yonent nee na gaaw leen ak ñàkk a ngi ñëw goo xam ne da lay fàttaloo yàlla fàttaloo la waxtu yi fàttaloo la jaamu yàlla aw ginan mutgiyan wala koom goo xam ne day tax nga nekk bandi nga saay saay am alal ba nekk saay saay waaw la ne waxtu julli jot la nga ne ah amul problème après quoi danoo war a def nangam après alal joo xam ne day tax nga nekk kàccoor doo tootal yàlla gaaw leen kon ci alal yi ngeen am jaamu leen ci yàlla balaa loolu di leen dab aw maradan mufsidan wala feebar bu yàq feebar boo xam ne bu la tëralee dootoo jóg da ngay dégg nodd doo julli dootoo dem jàkk mënatoo dara ndax feebar moo la tëral gaaw leen kon balaa feebar bi di ñëw fi ngeen wéree nii jaamu leen yàlla balaa feebar di ñëw feebar boo xam ne bu leen tëralee dootu leen tal yàlla allahu akbar benn waay du ma fàtte mukk sama benn xarit moo ma doon jox message boobu nee na benn xaritam dafa am alal rek bew su gisee ku muuru da koy saaga su gisee kuy jaamu yàlla da koy saaga ne ko julli ngeen ba dee amu leen dara waaye dimbali leen ñu waay yéen ñee rek di waaraate da yéen a gën a walaa kaana seen julli yi bu fekkoon dina indi xaalis ngeen am alal loolu la daan wax waaye ñu naan ko déedéet ñun julli wuñu ngir am alal dañuy julli ngir ay jaam lañ yow doo góorgóorlu nga soppeeku doo góorgóorlu nga ragal yàlla waa ji soo waxoon yàlla sax lu bon la ci teg te ab julli la dafa wuyu rek waaw benn bis waa ji ne ko gis nga yaa ngi nekk fi di fo rek mais bis yàlla dina ñëw rey la sa jabar ji keneen takk ko mu ne kon ma génn ci armeel yi waay rek nangam waa jooju waaw daal di saaga bis ñëw ndeysaan yàlla tëral teg ko feebar hôpitalu ndakaaru yëpp ñu yóbbu ko ci mënuñu koo faj ñu yóbbu ko principal mënu koo faj ba feebar bi gën a métti ñu door ko ci avion yóbbu France sama xarit bi nee na man maa ko doon jëli aéroport mu ne biñ bi muy wàcc ci puus puus ma ñëw tiim ko nee na musuma jooy sama papa dee na jooyu ma am naa problème bu nekk mi musuma jooy mais dama ko tiim jooy ndax bopp bi amatul kawar ak ni meloon ponkal xees njool nee na dafa sew ruuj bopp bi kawar bi yëpp naaw ma tiim ko rek ma xool ko muy moom rek ma jooyi nee na cinq jours la def France daal di faatu waaye cinq jours yooyu mu fa def ndeysaan de dafa doon bëgg di tudd yàlla bëgg di julli su ne la i la affaire bi daal di arrêté daal di tag ndeysaan sama xarit bi moo ko doon bëgg a sabaat yi bëgg mu tuub di ko wax tuddal yàlla dafal nangam waaye fekk mënatu ko mënatu ko mënatu ko mbokk yi bu nu yab yàlla nanu gaaw ci wér gii nu wér balaa feebar gu yàq sunu yaram ñëw aw haraman mun fi daa wala màgget goo xam ne dootoo mun dara xam ngeen ne ay mag bàyyi ngeen leen ci kër yi góor ak jigéen mënatuñoo dem juma mënatuñu mënatuñoo dem jàkk bàyyi ngeen ci weeru koor gi ay mag ñoo xam ne mënatuñu woor waxe ñu ne damay génn murum koor mënatuma ko kon nag ñun ñi ko mën mbokk yi loolu bu mu ñu raw yonent bi nee na aw mawtan mujhiza wala dee guy bette dee guy bette dee day bette de dee day bette te moo ngi sunu ginnaaw xam ngeen ay nit yoo xam ne daaw bin waree ñoo ngi woon ak ñun fii ci jumaa ji ren gisuloo leen fi waaw yàlla programme na leen ñu war a bokk ci waa àllaaxira mbokk yi yonent bi nee na awi dajjal fa charru gaibin yantaziru awi saa fa saatu adha wa amar li gën a yées ci musiba bu jullit ñi di xaar mu war leen fekk ci kaw suuf léegi mooy dajjaal te moo ngi ñëw li gën a yées ci musiba bi yonent bi ne moo war a fekk waat waa suuf ci kaw suuf mooy dajjaal yonent bi ne muslu leen ci yàlla ngeen gaaw jaamu yàlla balaa dajjaal di leen fi fekk est-ce que nekkuñu sax ci jamono dajjaal ndax lii ñuy gis ci mbon mbon lii ñuy gis ci ay bakkaar lii ñuy gis ci ay waame waame waame yàquteeg yàqu pas-pas ak ay njiit yu dëng ak diine ju tasaaroo est ce que nekkuñu ci jamono dajjaal yonent bi nee na mooy jamono ju gën a yées juy fekk jullit ci kaw suuf mu ne awi saa wala bés pénc bés pénc nag moom moo gën a gaaw comme melax rek yow mal xiyaam daal di taxaw aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في مسند إمام الأحمد أن الموت أن الميت يقول له عمله الصالح في قبره ana amaluka salih كنت والله سريعا في طاعة الله بتيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له بابا من الجنة وباب من النار فيقال هذا كان منزلك لو عصيت الله أبد الله لك به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب أجل قيام الساعة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci musnadu imam ahmad mu ne ku faatu ku dee sa jëf ju baax daf lay wax ci sa biir bàmmeel ana amaluka saalih maay sa jëf ju baax yonent moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam nee na ku faatu sa jëf day ñëw ci yow jëf ju baax ji nga doon def fiilul xayr lu baax loolu day ñëw ne la maay sa jëf ju baax daal di lay giñal ci yàlla ne la wallahi kunta sarian fi taatillah yow day ku gaawoon nga ci jëf ju baax gis nga loolu nga gaawoon ci jëf maa ngi nii tey maa ngi nii acca waral jëf ji daal di sëgg nga daal di koy war mu daal di ñëw siraat daal di naaw safara jahannama ngeen cëppeelu ji yaag jëf ji biir aljanna mu ne la yow ku gaawoon nga ci jëf ju baax waaye ku yéexoon nga ci mooy yàlla jëf ji du fa yam de jëf ji ne la fa jazaka allahu xayran yal na la yàlla fay yiw yow mi ma doon jëf allahu akbar yonent bi nee na summa yuftahu lahu baaban min aljanna ñu daal di ubbil waa ji benn buntu ci aljanna waaye wa baabun min annaar ñu ubbil ko beneen buntu càmmoñ safara fa yuqaalu hada manziluk law asayta allah ñu ne ko gis nga kër gii mu xool gis safara ñu ne ko soo moyoon yàlla fii mooy nekk sa kër waaye yàlla changel na la ko xoolal ndeyjoor mu daal di xool gis aljanna ñu ne ko yàlla changel na la ko fee moo lay xaar aljanna nga jëm waa ji ndeysaan bi mu xoolee yàlla changel ko safara ubbil ko kër aljanna xam ngeen waajooju lan la wax yàlla na ñëpp dee ba yowmal xiyaam taxaw ba mu dugg sama kër aqimi saa yàlla na yowmal xiyaam jot allahu akbar faaletul dund adduna de faaletul ñu nekk adduna faaletul mbokk yi fa nekk dafa bëgg léegi ñëpp nañu dee pour rek moom mu dugg aljanna ndax yàkkamti mbokk yi gis ngeen kon jëf ju baax jëf ju baax a ngoog fa ida raa ma fi ljanna qaala rabbi ajjil qiyaami saa bu xoolee rek jàkkaarloo gis aljanna mu ne gis neexaay gi dafa xool rek duggagul de mu ne yàlla na ñëpp dee ba yowmal qiyaam taxaw ibadallah amma sifat al mubadara ila al xayrat bu fekkee gaaw gi ñu war a gaaw njëkkante lu baax ñëw na ci ay aaya yu dul jeex borom bi subhanahu wa taala di wax façon jëf yu baax yi ñu war a njëkkante inna alladina hum min xashyati rabbihim musfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yuminun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون سورة المؤمنين سورة المؤمنون آية 60 61 برم بني إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون am na ñoo xam ne ci ragal gi ñu ragal seen boroom buñ leen di wax aaya yàlla yi dañ koy sentir ci seen yaram mushfiquun dañuy tiit ragal yàlla borom bi nee na wallazina hum bi ayaati rabbihim yuminuun am na ñoo xam ne ci nit ñi seen aaya borom yépp lañ gëm alquraanu yàlla bi lépp lañ gëm aaya yàlla yépp lépp lañ gëm wallazina hum bi rabbihim la yushrikuun am na fa ñeneen ñoo xam ne du ñu bokkaale yàlla ak kenn du ñu dendale yàlla kenn ak lenn yàlla rek la ñuy gëm wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un am na fa ñoo xam ne ndeysaan buñ dugalee loxo seen poos di génne di joxe di jox jaamu yàlla yi di leen dimbal seen xol yi day jàpp ndax sax dañuy xeeb yenn saa yi li ñuy joxe ndax xam nañ ne yàgg-yàgg ñoo ak alal yëpp ci yàlla la ñuy dellu yàlla ne ne gis ngeen ñii ulaayika yusaari'una fil xayraat ñii ñooy ñuy njëkkante ci def lu baax ñii xam nañ lu baax moo tax ñuy njëkkante ci lu baax wa hum laha saabiquun ñii aljanna ëllëg kenn du leen fa njëkk wa hum laha saabiquun kenn du leen jiite aljanna lu tax ndax dañoo njëkkante ci def yu baax yi bokk jullit yi at targhib fi fi'lil xayr yàllaa ngi soññ pour ñu góorgóorlu di def lu baax fi'lul xayraat falahun def lu baax kuy texe rek moo koy def gis ngeen tey li baax ni mbëre dem sangu ba set jàpp ñëw jàkka ji toog julli def say azkar génn kaamil alxuraan toog di jàng nga def ci jàkka ji 10 minutes ak sangu ba pare sol sa yére dem toog ci podium toog ci tribune stade di yuuxu di yuuxu di yuuxu di yuuxu depuis fajar xam ngeen samedi xaw ma samedi xaw ma dimanche am na combat xool leen ban heure la stade bi fees ndeysaan xoolal yàlla li mu wax ci njëkkante lu baax ak def lu baax xoolal ñu toog ci tribune di yuuxu huit heures ci suba wala am ñu fa fanaan ba ban heure ba timis ca bis ba ñaata waxtu lañ ñàkk ñaata minute lañ ñàkk ay waxtu ak ki nga xam ne tey dafa ubbi kaamil daal di jàng bismillahi rahmani rahim kese bu yemoon foofu yonent bi nee na laa aqulu alif laam miim xarf bal alif xarf laam miim ñaata tiyaaba fanweeri tiyaaba alif bi fukk la laam bi fukk la miim bi fukk la soo jàngee kon baqara ba mu jeex waaye gis ngeen loolu ni mu bëree ci ay tiyaaba nit ñi fii lañ ko daan romb ñukk dem toogi ci kanamu télévision yi toog ci kanamu nangam yi toog ci kanamu toog ci kanamu ñenn ñu sol seen dàll wallahi jëf ju baax bëri na waaye ñi koy def ñoo tuuti ñii def lu baax ñoo tuuti waaw bal sax nit ñi bëggatuñu lu baax bëggatuñu lu baax lu bon rek moom ngay gis ci télé yi moom ngay gis ci rajo yi moom ngay di gis ci mbedd yi sol lu bon xool leen sol lu rafet sol lu mat ni mu yiwee ni mu baaxee ak sol lu ñuy sol di nga gis jigéen joo xam ne li mu sol du matul kilo wallahi buñ ko doon peese du mat kilo nga gis nit ku ko sol fan lañ jëm te yàlla sant ñu ne njëkkante lu baax moo tax ëllëg yowmal xiyaam doomu aadama amul lay boo defee benn tiyaaba yàlla fay la ñaata fukk man jaa bil xasanati falahu asaru amsaaliha wa man jaa bi sayya yàlla mu ne fala yujza illa mislaha ku def lu baax yàlla nee na ma fay la fukk bal lu bon li tey la ñu gën a bëgg moom la ñu gën a profité da ngay gis sax ku def lu bon gars yi di la di la di la di la tagg waaye kii ngand la ah ca jëfwaay waaye mais kii saaba la mais ponkal la mais kii du nit lan la def lu bon ki def lu baax moom day nëbbatu da ngay gis jigéen ji sol lu baax wala xale bu góor bi sol lu baax wala jullit bi def lu baax day nëbbu ba ci nuyoo yi sax asalaamualeykum sax léegi boo koy wax da ngay da ngay am kersa waaw ngay am kersa ci wax asalaamualeykum wa rahmatullah gars yi dañ lay xool dafa ne benn allaaji bu bees bu jógee màkka nga ndax rus tey nit ñi fu ñu toll ci mbon nit ñi fu ñu toll ci complexe nit ñi fu ñu toll ci ñàkk diine nit ñi fu ñu toll ci ñàkk a xam jëf ju baax mbokk yi tomb bu gudd la munul jeex tey noo ngi ñaanaat sunu borom subhanahu wa taala yàlla wéral nu may nu tal ak fekke ba nu taxawaat fii ñu yéene ko sunu bopp yéene leen ko eggaliko allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt wala tuazibna ba'da almawt birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي ظلوما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الأرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
تكون من تكون
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول